bëri jàmm neex deret baax sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalifa bu nit ñi bëgg te fonk ko nitu yàlla bu nekkit ci xolu taalibe yi ak ñi ko xam mu di suufi boo xamee ni diine rekk moo ko ñor bi mu toogee jataayu sëñ Tuubaa bi bi mu njëkk a def defe naa ne image yi ñu ngi mooy daf ne bi ma nee bërët damaa jàng ba am xam damaa jàng bu yàlla defal ma taw feex ci xam-xam ma jóge ci jàng àddina ba yàlla defal ma ci tawfeex ma jàng diine ba yàlla defal ma ci tawfeex ma jàng sëñ Tuubaa ba yàlla defal ma ci tawfeex loolu moo ko waxal boppam boobu ba léegi nag niñ ko xamee rek nit la koo xam ne euh, repère la ñeel nitu addina bépp damay wax ne sëñ Muntaxa ku ñu war a universaliser la ndax kenn ku ne dangay gis sa bopp ci moom ndax ni ko yàlla melal ak mbaaxane ci moom xam-xam bu dul set ragal yàlla gu mat sëkk. sëriñ Mountakha Mbacké ñëpp lay déglu ku nekk bëgg koo gis ngir diis ko soxla wala sàkku ci moom ñaan wante xeebul kenn du tuutal kenn ku fonk doomu aadama la. bisu bisu bisu daje gi suñu moo tax moom ci boppam sax mas naa koo dégg mu ne nit koo gis muy dox doxinu buur lay dox ndax yàllaa ko tere. loolu yàgg na ba mu koy wax muy daal ne wala xadd karam ba nii aadam daal ne karaamatu googu nit ki da koy yëg ci boppam ba boo dee nit ne moom boo ko bëggee tedd dil day delloo boppam ca yàlla boroomam ma ko teraloon daal ne kon nit dafa mat a wormaal mat a delloo teraanga ni ko yàlla joxe yàlla mi ko bind loolu mën naa la cee nettali benn anecdote bëgg na nit ba ñi ko xam jege ko di liggéey ci moom waaw sëñ Mor Penda mi mat na ci seere bëggul kuy kuy delloo gannaaw nit fi ne bu nit doon ñëw bu nit ñëwoon ci moom ak xëriteem ba song ko daanu ci kawam bu fekkee xam nga dara ci sëñ doo jëm ca kooka dara da koy bàyyi rek waaye doomu aadama la bëgg ba xam na ne yow mi ne ci moom di liggéey yërëm nga ko am nga ci moom ak cofeel waaye yëg gi mu yëg ne nit ñi ko dëgmal sëñ Tuubaa tax ñu dëgmal ko moo tax bëggul kuy kuy kuy delloo ginnaaw nit. liggéey Sëriñ Tuubaa bi liggéey bi. yéene bu rëy la sëriñ Muntaxa am ci Touba tey taxawal na université Cheikh Ahmadou Bamba ci dëkk bi fas na yéene jële ndox mi lac de Guiers indi ko Touba. du mu nekkee ci xilaafa gi atum 2018 ba tey mu ngi ci liggéeyub sëriñ Touba bi tàyyiwul tokkiwul. sëñ Muntaxa naka jëkk ni ma ko waxee di nit koo xam ne sëñ dafa mas a doon yitteem liggéeyal sëñ dafa mas a doon yitteem naka jëkk loolu bi mu fi nekk ay kilifaam li lay won ne sëñ Tuubaa yitteem la mooy yittey ay kilifaam ci lay xëy di ci gont tàmbalee ko ci sëriñ Moustapha Bachir bi ñu bokkal lépp bi fi sëñ Moustapha di nekk liggéeyu sëñ Tuubaa bi daf ko ñoroon ba lépp lu sëñ Moustapha dugg ànd na ko moom xam ne day joxe léppam sëñ Mountakha mooy koo xam ne day joxe jëmmam joxe waale am xelam ak xalaatam ba booy kilifaam boo nekkee moom da ngay jàpp ne amut lu mu bëgg ah kay waaye bëgg jàppale kilifaam ca mission ba mu amee loolu mooy waral doo jortu ne am nag bëgg wala nga jàpp ne am na xam-xam wala nga jàpp ne am na xel. noonu la doon doxaleeg sëñ Moustapha noonu la doxalee ginnaaw sëñ Moustapha ñi nekkaloon ñëpp ba kenn ku ne ci ñooñu nangul ko ko la ko ci Serigne Saliou la ko sëñ Saliou tafe woon ci bopp ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine ba ci sëñ Sidi Muxtaar sëñ Muntaxa Mbàkke ràññeeku lool ndax ak taalubeem donte ni mooy njiitu kullu murit njiit loo xamee ni musul des ginnaaw ci liggéeyu sëriñ Touba bi nekk ci ay loxoom